Balla Gaye rek ku sa war addu adduna lépp loo gis dafay jeex. te luy jeex na xam nga moo ci am solo. mu rafet day rafet chaque jour. Balla nga jub bis bi am nga solo. bis bi nga xamante ne judd naa ko dama ko war a fête. moo nekk mbégte. ma ci sant sumay papa ak sumay yaay. ak sumay mbokk. bis bi nag accès guñ. waaye buñ ci accès dina tàng dina métti dana neex. Ah mais mais <laughs> mais damay dama koy dama koy tontu ci lu mu wax sax. ok wax na ni coach yu baax la ñu kii xar yu baax mais man xam nga loolu laay jàpp ci nit. xol. ndeysaan. barke Seex Ahmadou Bamba bu ñu bokk. ndeysaan. taalibe boo koy wut mi ngi nii. ndeysaan. non déggoo lu mu loo. taalibe mi ngi nii man nag ab taalibe la bu ma gisee sa mbokk taalibe mu koy tege. ndeysaan. foofu laay. Omar moom ba ni la ko waxee rek Serigne Touba ñu boole. jàmbaar la. moom jàmbaar la xam nga ni muy waxee nii. waaw noonu la mel. te noonu la may entraîné man mii waaw fekk naa leen saal de man. wallaahi noonu lay entraîné mu lay teg lu métti. ay jàll waaye yow. Badou <laughs> Thiass sa waay day day tooy de quoi. nag jawriñ nag daa mel dafa soxor de. dafa soxor de. vraiment kontaan naa lu baax la mooy defal saal de. parce que entraîneur noonu muy anniversaire rek comme ni ñu ko waxee. ñu gis mbokk yeeg xarit yi ñëpp teew. nit mbokkam. dëgg la comme dëgg la noonu la rek. waaw dëgg la keneen noo koy féetee keneen keneen su noo koy féetee. te ñoom daal mention spéciale bañ ma jàppee ba léegi mbaa yi ñu gisee lu mu naqari ma neex ah, incha allah noonu la jàppee ñu ma succès. Ah, non non làmb wala non non non làmb suma métier la kenn ku nekk am na métier mais li gën a am solo mooy nga jàpp nit yàlla tax boo gisee loo xam ne yennul maanaam nga gisee loo xam ne dafay defar nga wax loolu ba ci yére sax dañ ma koy jëndal wala daal di ma ko jox bu tax mënoo ne duñ ko donc vraiment maa ngi leen di sant mais daal maa ngi ñaan yàlla mais Omar xam naa la dama koy topp sax parce que liiru jaan boobu la jënd koo wax nee na nee na ko boo moytul yaay nekk sacrifice su combat bi te liiru tontu ba naqari na liiru trop non naqaar wàllam boobu naqaar wàllam ba ci kanam naqaar wàllam ba léegi ci